ngir naka cosaanal képp nit aadamu mooy aadam wax wate moom min tiini turaabi mi ngi bàyyikoo ci banu suuf sa faalamoo na ngeen xam ndax nee na mboolem doomi aadama yëpp ñu ngi bàyyikoo ci aadama ndax xawaa soxnaam sax ñu ngi ko liggéeyee ci maanaam yàlla nga ko sàkkee ci faaruk aadama kon aadama mooy cosaanu ñëpp te aadam suñu borom suuf rek la tabax wala batigu ëf ci ak ruu mu daal doon aadam kon nag ndegam ñëpp ñoo bokk ndey ak te lañuy ñu gënaantee rek mooy xam-xam ak diine te xam-xam ak diine xamuñu ba xam mujj ga nu muy demee moo tax kon jërul kenn jàpp ne gënagul na kenn ba ëllëg ak jàmm falasta déet yow aftala ngay gën ak yow sama mbokk min ahadin kenn li li limaa ngir réere la nga xam ne tas yiru nga mujj fii ci moom fii xadin ci ëllëg way wow sax mooy leeral loolu daa wax ni jaaduwul nga jàpp ne yàggan kenn te la ko waral mooy umple gi nga umpale sëg mujj te nga mujj xamagoo ko rek moom te amul fekk am solo kon nag bul defe ne gën nga kenn tane nga kenn mu ñëw nag wax la dëgg-dëgg gi reetaan izhaaru tanzimin feeñal ak màggal bi xasti zammi ànd ak jubloo xas ànd ak jubloo ŋàññ sammaahu tudde na ko ahlul ilmi ñañ xam-xam suxriyatan reetaane nee na boo feeñalee jëmm ji màggal goo ko màggal ak teg goo ko teg fenn te jubluwoo ci lu may ŋàññ ko xamal ko ne ko sa dara ji agul fii rek ndax am na koo xam ne boo ko tegee fenn fi da koy won rek ne ko tolluwoo nii loolu nag moom ca dëgg-dëgg reetaan la di sax nit fañ defe ne fa la dara jaam yam boo ko ko weesalee yow te jublu ci màggal ngir yàlla it loola moom baa nga xam ci baatinam lu ko jar ba tey loola moom dara nekku ci waaye nag saa yoo ko feeñalalee ak màggal ak teg fenn ngoo xam ne jubluwoo ci lu may wan ko ne ko àggoo fii sa daraja àggul fii mooy ŋaañ di nga ci jublu loolu moom ak reetaan la xeeti reetaane yi dafa bari waaye yëpp rek lañu war a moytu bañ a ken kenn kenn xaqiqatul xabasi dëgg-dëggi fo kullu laay bin mooy mépp po xadd mën a at moom tere na min hu ci moom shari'atu nabi yoonu yoonante bi daa waxoon ne fo bo bokk na ci yi nga xam ne mu kàllaf war na koo moyu mu ne la nag po mi aay daal mooy mépp po xam ne lislaam da ko aaye mépp po mu lislaam aaye rek xamal ne araam na te bokk na ci xeeti po yooyu comme moo xam ne ku nekk day teg ab teg ñu jongante ku dàq jël ko moo xam dañ koy defee ci ay xob moo xam dañ koy defee ci xeet loterie yooyu le mbaa ñu koy defee ci course ni ki dawal ay fas mbaa ñu noonu saa yoo xam ne daal moom ñoom ñooy fo ku ne day teg ab teg te ku raw maanaam ku jom ca loola daal di koy jël mu daal di aram su fekkee nag day lu mel ne course ab jaamur di ki tegal leen nga xam ne moom moom yoonam nekku ca da leen tegal rek noonu bàyyi leen na ñoom ñu dawal ku raw jël loola moom dal ni tax mu dagan waaye daal xeeti po yi nga xam ne yëpp daal ke day teg kee day teg te ku dàq jël ko rek maanaam ku jong rek jël ko xamal ne carte la bokk na ci araam lu mel xeetu football nag moom bu fekkee mën na nañoo pexe ba la yoon bañ du ca am ni ki jaxasoo góor ak jigéen ak ñay fo ñàkk a seen awra ak waxtu julli jotee ñu sàmmoonteeg julli ga ak lépp lu yàlla aay daal bu fekkee du ci am moom ci jëmmi poma ci football ba moom mënees na ko moo tax sax réewu jullit ñi te àtte woo jullit daañu ko di def waaye nag nañu sàmm rek la nga xam ne moo ca war moom min fu bokk na ca jaa isun aji dagan wa min fu bokk na ca maapa moo xam ne musiba askaneef na ko ila karahatin jëm ci sib wa min fu bokk na ci fo maapa moo xam ne nu di ba soppeef na ko pokat nee na dafa def ay xaaj-xaaj am na ci fo moo xam dagan na xam ne mën ngaa song def ko te dara la ca am na nag po muñu sib nga xam ne bañ ngaa defa gën soo ko moytoo ngir xam ne gënut ñu bindal la tuyaaba ci moytu ga nga ko moytu am na po mu ñu sopp nag mooy po mi nga xam ne dana ko wax léegi nga xam ne boo ko defee danga nga ci am ba boo ko bàyyi itam nag doo am bàkkaar ca bàyyi ga ndax lu ñu sopp mooy safaanub lu ñu sib ñu sib mooy loo xam ne bañ gaa def moo boo songee def ko doo ca am bàkkaar waaye boo ko moytoo nag ñu bindal la bàkkaar ci moytu ga ko moytu lu ñu sopp nag mooy loo xam ne soo ko bàyyee bañ koo def des la ca topp dara ci bàkkaar waaye nag boo góor woon ba def ko ñu bindal la ca tuyaaba jaa isufa aji daganam ja almasu moo di kaf maxa sadiq ànd ko xarit bil xaq ci dëgg laa xayru du caagéenu lu dul dëgg xala taxqiqi ca dëggal ga po mi nga xam ne moo dagan moo di ngay kaf ak sab xarit te li ngay wax lépp di lu am nga xam ne kaf gi lu mu neex neex doo ci wax lu amut ndax bu kaf nga neexee ba tax nga wax ci lu amut it dañu koy bindal rek muy bàkkaaru fen kon nag ci xel ba booy kaf lu kaf nga neex neex na wax rek lu am benn ngoog makruhu lu ñu sibam iksaaruhu moo di ak barilam iksaaran ak baril li am annahu ngir naka moom yu dayyihu dana sànq yu dayyihu dana sànq al amaara dund ya nee na nag po bi ñu sib mooy bu ñu la nee po sàngam dagan na ne ki kaf gi wax léegi ak sab xarit bu ñu nee dagan na itam boo ko barilee ñu sib ko ndax xam nga dir yaa ngi kafay moom yaa ngi sànq sa dund mooy sa dund ngi jàll rek sa waxtu yi am solo lool ci yow yaa ngi koy bàyyi mu jàll rek te defoo ci lu am tuyaaba loolu nag moom la ñuy bañ moo tax bu baree rek ñu sib ko man doo buxoo lañu soppam alxabasu mooy fo bil xalilati ak soxna walwalati ak doom mooy xale rek ak saxiiri bi aji ndawe daa bàyyil radilatan caay-caay po a ñu sopp nag moom nga xam ne boo ko defee te am ci yéene ñu bindal na ci tuyaaba mooy fo ak sa soxna ndax day tax seen diggante gën a neex ngir gën am ànd boo rafet ak jàmm a yërëm gone bay fo ak moom ndax nee nañu ñàkk fa gone di fo moom day wane xol bu wow jël gone di kaf moom nag day day wane xol bu am yërmaande loolu moo tax sopp nañu loolu wa jawwës wa daganal nañu alxabasa fo bi sax mi ca fett ga kazaliki ni bil kal bi ci ab xaj wal farasi aku fas fadri na nga xam almaqasa jàppukaay ba bokk na ci dagan fo foye ay fet maanaam fo ci kaw jongante ci ku dàq jam ku dàq jam ci fet ba tey mënees naa kursu ci fas wala ci xaj waaye na ci kaw sar na waxoon léegi maanaam ñoom yore fas ya xaj yi rawante kenn ku ne daa tegub teg te ku raw rek jël ko loolu moom carte la bu wér a wér dafa araam bu wér a wér liy baax kay mooy rek ñu dawal noonu kese yam ci bañ a teg dara dara mbaa boog ab jaambur tegal leen nga xam ne ku dàq rek maanaam ku jong rek daal di koy jël lislaam sax dafa fonkoon lool jongante ci course ci ay fas ak jongante ci ku dàq jam ci ay fent ndax yooyu jamono lislaam da daan soxla jihaad te jihaad bi ñu ko daan def fas ak fent da caa amoon solo lool lool waaye daal nañu moytu bu baax mépp pox moo xam ne rek nee nañu lislaam aay na ko rek aay na moo xam lislaam nangu na ko rek baax na xamel na xeetu bëri bi ñu def léegi a xeetu karaté yooyu def léegi ay gi moo gën a wóor ndax kooka mën na caa ñàkk bakkanam mën na caa ñàkk ab cër ni ki jaare ca pat ba jaare ca làggi te loolee kat amuñ ca lenn lu ñu def ngir mën a xeexal yàlla bu ëllëgee dañ koy def rek ngir alali adduna loo xam ne nag alali adduna dong lañ ci wut di nangu kooka di ca fo ba ci ñàkk ba mbaa mu ci ñàkk benn cër ci ay cëram wa nadarun xool li ajjuna bi yetti ñeel jaambur bu jigéen kazaliki nii la taladdudun taladdudun akuk bànneexu bi xawlihaa ci waxam ja daa bàyyil daa lii wa daa ak lii bokk na ci aay xool ab jaambur bu jigéen te moom sax ba muy wax sàmm say bët waxal na ko foofa maanaam mooy jigéen joo xam ne araamu la takk araamu la nga séy ak moom kooku suñu laa xool ci yaramam lu kanamam ak ay tengam ci kaw nga xam ne ragaloo ca xool ba jenn fitna de sax boo ragalee ci xool ba jenn fitna mu araam waaye daal bu fekkee ragaloo ci xool ga genn fitna kon mën ngaa xool kanamam ay téngam moom it nag war nay sàmm fu mu toll sàng yaramam yépp bu dee julli ak bu dee génn ak bu toogee foo xam ne ak góor ab jaambur mën na ko faa fekk kon nag bu kenn ku ne sàmmee wàllam rek mu daal di baax ba tey itam nag jigéen joo xam ne araamu laa takk araam na ngay bànneexu ci waxam ndax dañuy bañ bu wax ja neexee ci yow ba nga am ca bànneex seytaane daal lay moom ba nga jàll bànneexu ci jëmmam te bu boobaa xam nga ne mooy gën a araam ba tax mu ne bàyyi lii ak lii mooy bàyyil xool gi jaambur boobule bàyyi itam bànneexu ci ay waxam wa ak lu maalil naasi lekk alal nit ñi xindal xulamaa fooy xam ña bi xëyri tey bi nafsi ci lulu dayu bakkan xaruma araam na aydan ba tey te bokk na ci yi nga xam ne itam yu mat a moytu la lekk alali jaambur te xolam seddu ja mbaa bu ca xolam seddee itam daa xamul rek ne danga ndax xolam mën naa sedd ci kaw ñàkk xam nanga ko def ba jël alalam joojee kon nag alali jaambur moom da ngay seet nan ñëwee ci yow ba mu nekk anam gu dagan gu wóor a wóor bu dee jëflante na jëflante ga wóor tegu ci yoon bu la ko mayee na nga ba xam moom sañ naa mayem déet bu la ko jaayee yépp rek na tegu ci aw yoon moom daal alal jàmbur moom na muy ñëwee ci yow na nekk anam gu dagan xolom sedd ja boole ja waaye ëpp doole nit nangu alalam mbaa demee noonu mbaa mu dénk la nga fexe ba ànd ak moom dem ci yoon lijjantee lijanti boo demee amutooni kayit sax nga wax wax rek ba ñu am lu ma ko dara yooyu yëpp yu mat a moytu la wa min fu bokk na ci lekk alal nit ñi maa la nga xam ne saa dafa woo fiiroo moom wa dox yeta wooyeef ko li ak li ci jëm ci ak lekkam min ajli katratil xayaa ngir bari kersa bokk na ci nag lekk alali jaambur joo xam ne xolam seddu ca mooy rek nga fekk muy lekk mu ne la jàll sil bismillah ne la ñuy añ mu ne la ñëwal añ mbaa ñu reer mu ne la ñëwal reer loola bu fekkee amul firnde ju wóor ne xolam sedd na ca saye boo bañ a dem mu ne wóoree nag moom xolam sedd na ca moom na nga ko waxee ci làmmiñam noonu la nekkee ci moom am nga ci firnde yu wóor a wóor kon moom say boo dem waaye nag mu woo la woo bari kersa rek ne la bisimilah jaal si te xam nga ne moom loolee muy lekk doyu ko boo àndeek moom itam da ko lor maanaam boo demee lekk da nga ko lor lu mel noonu na nga ko moytu bu baax a baax su boobaa boo ko defee itam yaa ngi lekk alal jaabur joo xam ne xolam seddu ca tayit lekk ga lu araam la waaye nag nee nañu itam moom mi nga xam ne moo la woo te fekk loola nekkul ci xolam jàdd na yoon bu méttee métti ndax ak naafiq nekk na ci moom te tax na laa def loo xam ne soo xamoon doo ko def ndax ñu bari am nañ jomi ku leen di wooye xam ne yow mii yéen wala li nga leen di wooyee li ngay wax saw laa bi ndong la yam du ñu la wuy si kon nag boo yoree saw ñam daal bala nga caa woo kenn na fekk woo ga nga koy woo di dëgg ci yow xam na nga ko yéene bu wér a wér waaye bul ko woo ci kaw soo làmmiñ te fekk yéene wo ko ko wa mën a oo tere nañu ay dan ba tey alil xakiimi jële ca aji xam ja xikam naa nekk ba tey alxuraan alil xakiimi jële ci aji bari ja xikam alhamza wal lamza ak lamza xalat taxriimi ci kaw araamal alhamza daañu ko firee regaju allamsa daañu ko firee ngelaju lu mu ci mën doon rek day yaar yoo xam ne dañ koy def ngir wane sikkus jaambur mi xeetu jëw te alquran aaye ko gis nga waylun li kulli humazatin lumaza moo tax mu firi ko la wal hamsu hamsu xaybun mooy sikkal ab jaambur bi ishaarat lu xuyóoni ci junjuk bët wal lamsu lamsu bil lisaani nekk na ci làmmiñ bil lisaani mayis na nga ràññeele yaa fatinan yow aji xellu nee na alhamsi mooy boo bëggee ab jaambur bëgg wax ayubam daal nga fexe ba junj ko ci say bët bañ xam ko rek dik nga regeju jëmale ci moom ñu xam ne moom ngay wax loolu ëpp naa def allamsu nag ñu koy wax ñelaju mooy waxoo ci làmmiñ ba sax sikk sa waaye dangaa junj ak làmmiñ ba ni ki dangaa génne sa catul làmmiñ jëmale ci kooka ñu xam ne moom ngay wax lu ci nekk xeetu jëw la boo xam ne aada yi miin na ko regaju ñu xam ka ngay wax ak ngelaju maanaam tàllal sa la laa ñu xam ka ngay wax te na ngay wax lépp sikk la lu aay loolu xeetu jëw la dañ ko moytu bu baax a baax te aada yi miinal nañ ko ci démb léegi nag xëy na mel na ne wàññiku na bu baax a baax wal aklu araam na itam lekk alal nit ñi bi diin ci turu diine lekk ci turu diine ñaar la benn bi moom fés na bu baax a baax benn bi nag moom mën naa làqu sax doo ko xam benn bu fés bi mooy wax ne man day nangam laa bëgg a taxawal ci profit diine yi ni ki jàkka wala daara mbaa yi demee noonu di laaj alal di la koy jox te doo ko jëmale ca loola loolu moom lu fés la bi ci des nag mooy moom ci boppam ñu xemeem ci moom barke ndax gis ne moom amee na xam-xam amee na diine ju rafet rafet ba ku ko jox sa alal am ca barke am ca ngërëmul yàlla loola bu fekkee moom ci boppam xam ne ci boppam ne ñoo ko jot rek waaye ci dëgg-dëgg amul ci moom kon ki ko joxee du sañ nangu loole ndax lépp lu tax ñu koy jox alal bu ko wóoree ni loolee nekkul ci moom rek lañ koy jox du ko sañ a nangu mel ne buñ jàppee ci moom ne moom loru na ba yelloo asaka tax ñu koy jox asaka te xam na ci boppam ne moom mi loruwul ci asaka kon du sañ a lekk maanaam daal ci gàttal lépp lu tax ñu koy jox alal xam na ne sabab si tax waaye bu dutoon sabab si kenn du ko jox te wóor ko ne moom sabab soo see nekkul ci moom déedéet kon du sañ a lekk ki buñ koy jox addiya jàpp ne moom daa sant Mbàkke mbaa daa sant Busa mbaa daa sant Jóob mbaa daa sant neneen ndax ñi sëñ bi seexal bari nañ léegi nag bu ko wóoree ne kooku daa jort loolu waaye moom santul nenn ci noonu su boobaa du sañ a nangu ba tey bu fekkee ne kooka la muy joxe da koy jox mook ñam bokkal bàyyi ñëpp jagleelu ci kenn ba kum li ko gis ñoom rek jox ko ko loolu ba tey mën naa nangu waaye bu fekkee ne moom mi la gis di ko jox waaye bu gisoon ku mbokkal baay mbaa ku mbokkal sant du ko jox lii muy joxe su boobaa na seetlu lu baax ba xam la tax mu di ko beral di ko jox noonee nekk na ca moom wala déet bu fekkee nekkul ci moom rek du sañ a nangu bu nangoo saye boo defal ko ko ci feneen fu yàlla gërëm bu fekkee ne wóor na ko ne moom la tax kooka di ko jox nekk na ca moom nag su boobaa kon mu sañ a nangu ba tey bu fekkee kooka day joxe addiya te ku sant Mbàkke kum gis rek yàlla koy jox amu ca kum cay xëj ak seen mbaa ña bokk bàyyi ñëpp lay jox mbaa ñoom la yemale loolu lépp rek kum ci jox mën ngaa daal di nangu waaye nag bu fekkee dafa am kum ca beral ngir am lu mu yaakaar ca moom loo xam nekkul ci ñi ci des moom moomee bu ko wóoree ni loolee ñu yaakaar ca moom nekkul ca moom du sañ a nangu alal jooja baa bu ko nangoo da koy defal ci feneen foo xam ne yaakaar nañ ca tuyaaba ëllëg ci coobare yàlla wa bi shafaahati ak ci am tinu maanaam bu la yàlla mayee daraja nga xam ne mën ngaa tinu kenn ñu tin ko da koy tinu rek ngir yàlla waaye du la ci jox dara ci alal di ki kuñ téye forootam xeet tooñ yi nga xam ne moom la faral dale ñu ñu néew ñu doole koo ci mën a tinu nga tinu ko ngir yàlla rek waaye doo ca sañ a laaj jenn alal bëgguñu sax mu jekki-jekki coobare wu jox la ngay nangu bu fekkee nag lijjanti ba faaw nga def ci sa alal daañu nangu lu tollook la nga cey def te mënta ñàkk mu joxaat la lu toll noona ba tey bu fekkee am nga daraje mën lijjantil kenn ay këyit doo ca sañ a laaj dara da koy lijjantil ngir yàlla rek mu jot ci kayit yi waaye duñu ma nangu nga lijjantil ko rek noonu lijjanti boo xam ne sa daraja dong la ñuy topp ba defal la la nga bëgg waaye amul jenn alal joo cay ñàkk amul benn coono boo cay am loolu doo ca sañ a laaj dara dara bu fekkee da ca paas dem nag mbaa dana am loo ca joxe loo xam mënta ñàkk nag loole ñu lijjanti fa ko awee aw yoon la jàddoo ci fenn fenn kon gannaaw ba mënees naa seet ki nga doon topp tool na fere ya toll rek mu jox la kese yam ci waaye daal loo xam ne moom sa daraja dong lañ la ko defale sonnoo ca ñàkkoo ca doo ci sañ a laaj kenn dara dara waaye kasaaliki nii xiiru fi li taaxatin yeexee def ak topp yàlla yeexee def topp yàlla lu ciy jublu yeexee julli julli farata ba waxtu wa jàll loolu bokk na ci bàkkaar yi gën a mag mu kàllaf sañu ko charul waraa ñu yées ci mbindeef yi alladina mooy ña nga xam ne yaxuzoona danañu jàpp bi ci turu diine bi diini ci turu diine am waaloon ay alal wa yakuloona te ñu koy lekk nee na ci doomi aadama yi mooy ñi nga xam ne dañuy lekk alal nit ñi ci turu diine rek te leeraloon naa léegi ne mën naa nekk ñaari façon ñoo xam ne bee day fés bee day làqu nee na ñu yées ci nit ñi nag mooy ñi lekk alal nit ñi ci anam gu demee noonu bu butoonu seeni biir takkoonu danañu nekk kal xusóori toll ni ay pale dañ koy wax kal xusóori mel ni ay njënde njënde mooy ay pale xadan ci ëllëg wakal bu yooti ak ay néeg duuna zuurin ci lu dul neen tas xaa gën dox alxaqaani bu jiit ya maxal xayaati ànd ak jaan ya fiihaa ci seen biir ya bi taadibin ci bugal bilaa mamaat ci lu dul dee nee na ñiy lekk alali nit ñi ci turu diine bu ëllëgee suñu boroom day yaatal seeni biir ba mu toll ne ay dëkk yu rëy rëy mbaa toll ne ay néeg yu yaato yaato sol ca biir nag ay jaan ak ay jiit ndax rek bëgg leen a mettital ndax bëgg rek mettital leen lool lool te kat la muy metti metti du ñu dee noppalu déedéet wayata adda dana loroo kullu man képp koo xam ne finnaari nekk na ci sawara min nat ni butoonihim ci xetuk seeni biir isar riifu ndeem jalaw wa taayinu dana gaar nee na sax ñooñu buñ nekkee sawara te ñooy ñi daan lekk alal nit ñi ci turu seeni biir lay génne xet gu naqare naqari maanaam buñ gelawalee ngelaw la day naqari lool lool ba nga xam ne ku bokk ak ñoom nekk ci sawara da nga am ngaañ lool ci seen xet gu naqari googee wala lëxoo deddi ñeel mukallaf suhbatu faasiqin àndaaleekub saay-saay wala xultatuhu du caagéen di jaxasoog moom li xëy di durin ñeel lor wala ngir lu dul lor mus jalan lu mën di doon ñu ne boo bëggee sa njulit rafet da nga ànd ak ab saay-saay maanaam koo xam ne daa am doole ba noppi ñeme yàlla lu ko neex lay wax lu ko neex lay def ku ko neex tooñ ku mel noonu na moytoo jaxasoo ak moom na nga moytoo ànd ak moom lu may nag daa mënta ñàkk waaye su mënee ñàkk daal moom na nga ko sori bu baax a baax foofu nga duggalaale nag mboolem ñi falu ci nguurug adduna gi maanaam buuri àdduna yi ak seen dak ak ña ñoom ñëpp da nga leen war a sori bul ci jaxasoo kenn bul ci amanteeg kenn dara dara. ndax borom doole ji ragalul yàlla ak nit nguur yi falu ak seeni gaay dañuy faral jekk àdduna ëpp ci jekku kat ci baadoole yi rek lañ koy jëlee xam ne alal jàmbur rek la ñuy yor su ko defee nag nga ànd ñoom day neex ni waaye bu ëllëgee day naqari ba tax mu naa wa man yusharikhum ku bokkaale ñoom xonaa fii fii hizihim ci seen tedd nga la yekkun kon mu nekk sharikahum di aji bokkaale ñoom nga doon ci ëllëg fii dullihim ci seen toroxte nee ku bokk ñoom seen teraanga fii ci àdduna bu ëllëgee nga bokk ñoom seen toroxte foofee ci àllaaxira wajji tani boo na ngeen teet mooy na ngeen moytu xul tata haulaai jaxasoo ñii li annaha ngir naka jaxasooga min aqbaxi yi bokk ne ci gën jaa bon yëf yi nee na ñu mel ni daal ñu buri àdduna yéeg seen dagak seeni gaay ak gaay ñeme yàlla rek sëgg ci jaam yàlla yi tooñ jaxasoo ñoom ëpp naa def ngeen ko moytu bu baax a baax bokk na ci yi gën a bon te gën a mën a yàqal nit lee mu ne li xayri durin ñeel lu dul lor maanaam bul ànd ñoom ci lu dul ngànt lu bëgg a wax bu la ngànt boole ñoom nag ni ki am loo war lijjanti ci sa bopp mbaa keneen koo war lijjanti te faaw ci ñoom rek ngay jaar yàllaa ko dogal kon na saxe ba lu yàgg-yàgg yow bul génn imaan islaam ihsaan lu yóbbaale mukk mukk ci dara lu wuteeg imaan islaam ihsaan noonu la ko sëñ bi waxe ci beneen béréb ne bu la yàlla booleeg ñu mel noonu ci ab dogalam nga fexe yow ba taqoo yett yooyu te buñ la ca génne mukk mukk kem sa kàttan daal taqoo la yett yooyu laakin waaye nag mudaaraatuhum booy jàngoo yi nag mudaaraatuhumoo wëndeelanteeg ñoom xadd wudibat soppeef na ko kama bi naf si nag mu nekk ci yax fii hadisin ci ab hadis xaddu sabata boo xam ne soxna mu ne waaye nag buri adduna yi ak seen dag boo ragalee ñu yàqal la sa diine ñu sopp nga mu daarante ñoom lan mooy mu daarante moom lay bëgg a wax mais sax bu dee jamono yi nga xam ne mën ngaa may jotee ñoom dara dara moom da nga leen di sori rek moom jamono yi mu wax lii kay mooy ba nga xamee ni booba dañoo yore woon adduna ji dafa ko dina leen neex nga xam ne bu fekkee jéem la am ak ñoom jàmm mënuñ la yàqal sa diine te doo ca dara waaye léegi si moom am nga sañ-sañu beru leen te doo jotee te jotee ñoom dara lan mooy mu daarante googu nag mu lay bëgg a wax waxat duhaa dëgg-dëggi mu daarante googu waxat duhaa mu daaraatu ba uhum moo di seenu gërëmloo maanaam seral seeni xol bi xëy maa ci ludul la nga xam ne lu xëyee tereef na ko makruhan mbir mu ñu lu ñu sib xul waxal aw muharraman mbaa muy lu ñu araama mu daarante moom lu ñu sopp la mooy nga fexe ba seen xol sedd te la nga serale seen xol naqariwul yàlla maanaam fexe nga ba seen xol sedd ngeen am jàmm te defoo mbaa waxoo dara lu naqari yàlla du lu ñu sib du lu araamal waaw na nga moytu moom bëggul leen neex tax nga def lu yàlla araamal mbaa lu yàlla sib loolu ëpp naa def loolu boo ko defee yàlla dina leen xabtal sa kaw boo ko defee yàlla xabtalil sa kaw doo ci mën dara li wax kay mooy nga fexe ba jubóog ñoom seral seeni xol ci loo xam ne naqariwul yàlla loolu na xam nga ko defee sàmm nga teggin ñaari yoon sàmm nga teggin sa digganteeg sa boroom sàmm nga teggin sa digganteeg sa boroom mu daaraatu boobu moom dañ koo sopp nga def ko mboolem waa kaw suuf ñi ci kaw suuf ñëpp daal ku ci ne nga ànd ak moom neex ba ngeen mën a juboo te fekk loolu naqariwul yàlla loolu moom lu ñu soppa sopp la li bon kay mooy almudahanatu almudahanatu mooy woyof diine ba nanguñu yóbbaale la ci loo xam ne neexul yàlla benn lu yàlla araamal la mbaalu yàlla sig la kooku la ñuy wooye al mudahanatu du yell nag moom mu daarante googu kat walam taliq du yell it illaa li aalimin dara ñeel aji xam kam yi lin aji mat xadd kaana ko nekk na daa xadaalet di boroomu maandu wala yamiilu te du jeng nee bu ñu nee la na mu daaranteeg buri adduna yeeg seen dagam ñooñu day nga boole yaari melo yii xam-xam gu wér te maandu maandu gu wér day boole yaari melo yii xam-xam gu wér maandu maandu gu wér loolu doo ko sañ moo tax mu naa fal xaalimu aji xam ja al jaayiru ja aji jéng laatal yoxu du yell moom mu daarante ga bii ci moom moom mislihu am ke la al jaahilu aji réer ja ay doon ba fon tabis na nga yeewoo maanaam fekk yàlla xam may na la xam waaye xam nga ci sa bopp ak ñàkk a maandu kon na nga moytoo jëflanteeg waa adduna yi muy buri adduna yi ndax lu la wëlbat te yomb xam nga sa bopp ak ñàkk a rek ñu daal la yóbbaale ca lañ nekk day yomb ba tey bu fekkee ne maandu nga waaye xamoo xam nga xam da ci baax ndax léegi mu xas nga umpale rek moom mën nañ laa yóbbaale ci loolu fi yi ni ayut fekk na aay na kon bul fàtte ñaari sart yooyu faaw da ngay boole xam ak maandu boole ci. bu dee ku xamut ku xamut yow mën naa yóbbaale ci la mu xamut bu dee ku maanduwut xam ba noppi ñu tegloo ko tànkam ca la mu xam teg ko fee loolu day yomb kon faaw na boole yaari melo yi door a mën a jëflanteeg ñoom xam te maandoo wala lahu déddi ñeel mukallaf talabu ridwaanil wara sàkku ngërëmal mbindeef bi soxti dil jalaali bi soxti dil jalaali jënde ko merum borom màgg ga baari il baraam yi aji bind mbindeef yi nee na mu kàllaf kat warta bëgg lu neex mbindeef ba merum yàlla di ko ci fekk waaw dëgg lu neex surga ba merum njaatige la ci fekk loolu ab dof rekk koy def moo tax mu ne kenn du sàkku ngërëmul mbindeef ba merum yàlla di la ci fekk moom daal da jiital ngërëmul yàlla boo ci amaalee ngërëmul mbindeef nag mu baax waaye nag bëgg lu neex mbindeef rek ba yàlla far la ci mere moom ëpp naa def maanaam daal bu muy bu yaari mbir tase yoo xam ne moom mbindeef mi lii la bëgg yàlla lii la bëgg tañ safaanoo nga xam ne faaw nga topp ci lenn kon na nga góorgóorlu topp yàlla te bañ a topp mbindeef moomee xam ne bu la yàlla gërëmee dana ko wax léegi moom ku la mën di mere du wàññi dara waaye bu yàlla xosee mere moom ku la mën di gërëmee du jëriñ dara wallaahu yàlla war rasul ak yonante ba aji daru ñoo gën a yeyoo bi añ yurub leen jamihul mu'minina mboole way gëm ñi fi zamani ci jamono nee na képp koo xam ne nga mën gëm naa yàlla gëm yonante bi kon ngërëmul yàlla yonante bi nga war a jiital door caa teg leneen waxad ataa dikk na fii qawli ahmada ci wax ahmad almakki ni kay aji yëkkatiku daraja salla yal na dolli tedd nga wa sallamati dolli woolu xale yi ci moom ku laxi ci bépp waxtu mursilihu aji yónneem ja wa alihi ak ñoñam wa sahbi ak ay sahabaam wa kulli muminin ak képp kuy aji bihi ci moom min hisbihi ci kuréelam ba ñëw na ci xadiisu addis bu wax ne laa taaxata deetu topp lil maxluuq li ñeel mbindeef fii masiyatil xaaliq yi ci mooy aji bind ji fa fi na nga matale al misaaqa wala réewa daa wax ne ñëw na ci wax yonante bi kenn ku yàlla dool teraanga ak jàmm moom mboolem mbokkam yaag saxaabaam yaag képp ku gëm rek bàyyi ko na ci moom addis bu wax ne laa taaxata lil maxluqi fi maasiyatil xaaliq kenn du topp mi def ci ak mooy yàlla mi def moom bu diglee la yàlla diglee ñu topp ko xam ne yàlla lañ topp waaye bu diglee lu yàlla aaye moom mu dig mooy kenn waru ko caa topp xultu wax naa ne wa man talaba kuy sàkku ridwaanal waraa ngërëmal mbindeef ya bi suxti rabbi yi jënde ko merum boroomam fooxul run kon ab